Je Faye ma yónni remettre un euh, kit hygiénique donc euh, au gouverneur donc euh, de la région de Kaolack qui bi nak su savons, ko savon produits hygiéniques des masques, ay masque des donc vraiment tout ce qu'il faut pour lutter contre le Covid pour lutter contre en tout cas Covid 19 léegi nag ñun bi ñëw en tout cas maa ngi ñëw ànd ak à côté de moi y le directeur régional donc du développement communautaire qui est directeur donc de la région de Fatick de Kaolack et de Kaffrine moom laa àndal ñu ñëw en tout cas ndimbal li nga xam ne orientation président de la république Macky Sall la moo ne ministre yëpp dem leen ngeen jàppale ministre de la santé ci xeex bi muy c'est dans ce cadre là ñun xam ngeen ne tey ñun ñooy toppatoo lépp li nga xam ne aide alimentaire bi ñuy en tout cas néew si

ñu ngi rafetlu eh, jotaay bi nga xam ne ñu ngi dalal tey ndawul ministère développement communautaire ñu ñëw indil comité régional de gestion des épidémies bu Kaolack seen eh, ndimbal ci wàllu xeex bi comme niñ ko xamee rek eh, xeex bi ñun ñëpp ñoo ko bokk dëgg la ministère de la santé moom moo nekk ci kanam waaye comme réew bi dafa ay kuréel yu bëri ñoo ko ŋànk kon ñëpp ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk war nañ mën a jàpp ci xeex bi ci wàllu woowu noonu ci la fi waa ministère développement communautaire ñëw indi ab ndimbal ngir jàppale ñu mu nekk ndimbal goo xam ne ndimbal gu am solo la ndax dina dimbali askan bi buñ ko buñ leen ko joxee ñu mën a bàyyi xel li nga xam ne moom la médecin yi denkaane ci wàllu xeex bi. waaw ba léegi am na ñuy manifester wu am na ñoo xam ne ñu ngi ñëw di indi seen ndimbal dëgg la nag xëy na ni nga xam ne noonu la fëse woon ci njëlbeen gi wàññeeku na mais ba léegi am na ñuy ñëw te ndimbali bu ñëwee ba léegi tamit comité bi nga xam ne moom mooy saytu liggéey bi mu ngi ciy def liggéey bu mucc ayib di xool ñan ñoo ko yelloo mu dal leen koy sedd